ci yàlla la jógee de moo tax ñu di ko wax xaritu yàlla waaye Ibrahim mooy xaritu yàlla Moussa moo wax ak yàlla Isa mooy rawal yàlla Muhammad mooy kattan yàlla rek yonent bi jënd na ko fekk saaba yi naa est-ce que Adam ñu yàlla bind ak loxoom tànn ko wax malaaka yi ñu di ko fi jóotal ñu ne ma noonu dund yéen Ibrahima nga xam ne yàlla def na ko xaritam ñu ne Moussa mi yàlla wax ak moom nag ñu ne Isa mi yàlla def muy rawal nag muy dundal su dee yonent bi génn na dégg naa li ngeen wax waaye yàlla tànn na Adama ni ngeen ko waxee dëgg la yàlla def Ibrahima muy xaritam moo wax ak Moussa yàlla def Isa mu ko doxoom du dundal ku dee waaye gëñ naa ci ci wàcce ci maanaam Alxuraan ñoom ñëpp suñ teewoon fii tey dara du dagan ci ñoom ñu ngi topp ci sama kaw maa seen kenn ko ma sayid wala fi Adama wala safra Adama ak lépp lu mu gis ñu may seen sang lépp ci sama ron balaa tool ñu nekk ñu pencam yàlla def moo tax de Habib moo gën a foor Xalil Ibrahim mooy Xalil Muhammad mooy Habib Xalil mooy lan Xalil mooy koo xam ne lu mu sàpp ci xaritam rek am ko dañuy wax jiw daal juróoy xaritam lu mu ko laaj rek dana ko ko jox Habib nag mooy koo xam ne dañ koy jox sax te du laaj Ibrahim na ne wajnubnii wa baniyya an na'budal asnaama yàlla yàlla na ma wattu maag sama doom ñu bañ a jaamu këram yàlla may na ko loolu ci gani doomam yonent ñaanu ko ñu ne ko innama yuridu llahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bayt moom yàllaa ko nam rek may ko ko jumtu dara Ibrahima mooy wax wala si at na an yaskura nii xatiyaati yawma diini maa ngi ñaan ci yàlla mu baal ma sama bakkaat peccam yàlla Muhammad ñu ne ko innaa fatahna laka fathan mubiinan liyaghfira laka llahu maa taqaddama min dambika wa maa ta'akhkhara mu jiitu bam bam koy laaja Ibrahima moo wax ne waj'alnii lisaana sidqin fil aaxiriin yàlla may may tagg war a fekk ñi nga xam ne ñoo ñëw sama gannaaw yàlla may na ko ko Muhammad ñu ne lan wa rafa'naa laka dikrak yàlla la yëkkatin saw tudd lëkkale ko aw turam boo nodd boo ne ashhadu an laa ilaaha illallaah fa nga teg ca wa ashhadu anna Muhammadan rasuulullaah say xutban yooyu say am yooyu ba bëgg ba bëgg dugg ci biir lislaam yooyu kooku mooy Habib Habib a gën a xool xalil moo tax Ibrahima ay xalil waaye Muhammad moom mooy Habib walillahi aji nekk la ñaari ala maa fi samawaati la nekk ci asamaan juróom yi ala maa fi la leer nekk ci suuf juróom yaar ci moom la alhamdulilah san jaam wa kaana laahu masdaran yàlla mooy itam nga aji leen ko defee ci nekk def de waaye sax soo nekk danañ ko bulo ci ñu saay ci mbiram jigéen ñu ngi lay laaj xatteel jigéen ñaar seen miraase qul waxa laaw yàlla yuftikum dana muy bu ubbee leen ci ñu nekk ñoom jigéen ñi wa maa yutlaa ala def na jàng ko aleykum ci yéen fil kitaabi ci alquran ci laay miraas bi de su yatamaa nisaa yi jigéen ñi jigéen ñi laa ti ñaxña laa tootuma mun na jox leen en maa ko ci bala farata leen law na ñaa leen ba tarxa moona te ngeen di sit am santoo wala mu ngeen dencal leen ngir teelal ñaaw yan gàllankoor leen nag ngir jël seen xaral ya loolu yàlla leen ci ubbil ne judum yi ñu def daa yar fukki judum wala juróom-ñetti judum ñu ñaaw na duñ leen bëgg a denc te fekk judum yaa ngi am xalal ñu ngeen bëgg a maye ñu dem seen yóbbaale seen alal ñu takk leen rek soxla ñu ngeen ba noppi jël seen alal loolu yàlla ngeen koy aaye de bu ngeen leen xamee mut bu leen leen takk de na ngeen takk keneen defan ko ma taaba lakum wal mustad'afiina ak ñu doon daal ñaar ñu leen bindaani ci ndaw de ak ndaw yi nga xam ne dañoo néew doole ñoom it jox leen leen seen àq de ndaw ngeen yi ndaw yi seen amuñ doole gone yi am nañu ay jikko yoo xam ne mag mu ko jikko rek daal di bokk ci la daal rek waaye bu jàqee rek dal di sa tiram nga jooy gone soo xamee ne xeex na rek ak moromam dal di mat ca saafa du denc dara ci xolam day ay ndaw yi neen suñu àndee bu ca mag dugub duñ xeexee rek dal di jubóo mel ni duut ñoom de ku ca ëpp dal di jooy torox lu jàlla ñoom ndaw yooyu jikko yi ñu am mag mu ko am rek dal di bokk ca wali yàlla yi ñu tànnee rek benn wali bu ñuy wax abul mansoor yi mu def nii wali yàlla la woon woo xam ne ñu jiw ñu la góor ci topp yàlla ba dara nga suñu dee muy dee rek jàq lool doom bi ne ko bàyyi mënu tax nga jàqee nii ci waxtu yi ngay dee mu ne ko maa yaay doom maa ngi aw ci yoon woo xam ne xaw ma fa musuma faa dem maa ngi taxu ñu ci réew moo xam ne xaw ma fa kenn musuma faa dem xaw ma lu ma nekk di dee ba ñu dee ba mu dee nag doom bi ne ma ci turam lool ba yàlla wan ma ko ci jëer ko mu ne ko bàyyi na nga def mu ne ko nit ñi fi ñu ko natt ci jafe rek wees na foofa waaye daje naa jëm boo xam ne bu maanu la taxawal na ma Abba Mansour dundaloo naa la juróom ñaar fukki at loo ci def mu ne ko ñett fukki at yoo xam ne aj naa ko Makka nangu ma ci benn mu ne ko ñeent fukki junne dërëm yoo xam ne maa ko liggéey saraxa ko ci sama loxo yi mu ne nangu ma ci benn mu ne ñeent fukki xare yi yoo xam ne bu ci ne xare naa ko ci jaadu yàlla nangu ma mooy juróom benn fukki xeer yoo xam ne bëccëg yëpp xoor naa leen guddi yëpp naafila la nee naa leen góor ga amul morom de yàlla ne nangu ma ci benn nag ah mu ne ko alaku naa bon ah yàlla ne déedéet sama mbaax bi laa ñu gis may dugal ci mel yow ah mu ne man daal sama wax jeex na yàlla ne ko mos laa fekk aw ak béeg bu nekk ci kaw yoon nga randal ko nit bañ mu jàmp ak jullit mu ne ah kay mu ne ko baal naa la ñu loola damaa tafaandoo lu ngeen def min xayrin ci yiw fay na laa naka yàlla kaana ma suma dañ ale man daa ji xam bi ci moom ne moo tax lépp loo def ci lu baax rek na nga xam ne yàlla xam na ko te dana ko fay moo tax jëf yu baax yi du ci xeeb dara nit ku nekk kenn joxe ko yóbbu aljana wa in xaafat imraatum min baaliha nusoosan kooku lu ko wasal wàcc na ci sanga bindéef yi bala xamee ne sawdatu dem na ba mage na yonent bëggatu ko bëgg koo fase de ñu ne dem na ba ne ko jàppale de ñu ne déedéet xaw na dugg sëcc moom ay mandarga daal yonent tëddatu ko moom jublootu ko daal mu daal di kon yonent ci yoonu jàkka ja ne ko man soxlaatu ma ci tey dara dara dara dara may naa la sama moome ji ñëw sama moome ji may naa ko ay sata waaye rek moo fase bàyyi ma rek ñu boo léegi ñu dekkal ma ci say jabar man loolu doy na ma aw na soxla ci bànneex am àddina yonent nangu moo taxoon muy jox ay sa ñaari guddi di jox mu jiyén ca def benn guddi yonent nangu gannaaw bu laaya ji wàccee nag nangu loolu mu wër ne wayun xaafat ndem ndem séntu na imbaatum jigéen xaafat séntu na mun baa de aji jëkkatam nu soosan waa ak su sant gise ne jëkkatam xoolatu ko te dëkk ko moom joxatu ko dund ma ngay seet keneen te def ko bëgg a fase aw ñaraara niñ teg dëdd wala jina dég bakkar xale yi ma war leen an yestala bu ñu yéen wadde booyu daga nañ ñu yéen wadde ci bay lenn ci xaqam waaw ci itam nangul ko lenn de bay na mu maa diggante seen suufanaale dañ bañ laa fase ñoo gën de ñoo gën fasantu ko ñoo gën suufante wa ulati di koy def na nag su bakkan yu soxal tër de bakkan nag dafay tër jigéen ji dana tër de bu bëgg wacc dara ci loo xam ne cëtam la jëkkër ji itam wala soxlaatu ko mu gën a ko gën a rafet moom itam bakkanam du nangu lu may wuti keneen ku ko gënal de waaye ñu tax noonu leen xëy nañ leen wata tàqoo te ngeen ragal yàlla tey nag daanaka yàlla kaana ma si moo dañ xaddi lan daa ñu xam bi maa tamal da ngeen jëf ko de waram ko fatti yoo xam ci leen an tax bu ngeen maan waat daal ñu saa yi diggante jigéen ñi nit mën day amee nag mukk ñaari jabar ci mbëggeel wala xaras tum di lee xer ngeen ko léegi xer xer rek xam ko la gënal ci xaqal wala tamiloo waaye bu leen jàng bon ku leen may ni jëpp ak jàng rek moo tax waa gënale moom mun leen koo bañ waaye bul jàng jëpp ak jàng rek na nga séddale moo tax yonent bu baax maa laf di ko séddale waa këram daf leen koy séddale bu xem ne yàlla li ma moom ak moom séddale naa ko noonu li ma moomun nag yàlla ma ko baal xol bi moom moom ma ko yaa ko moom fata sar waa tey bay ko kat mu am laxati mu gën a kat bañ gàllankoor amul jëkkat amul ñoo ñàkk jëkkat waaye su soo ndem xëy na ngeen ci maanoo ci séddale wata taxoo ta ngeen seet jàng na laa naka yàlla kaana ma suma dañ afaran de aji baa leen la nekk ñu seen xol ci jàng rey man de aji yaram leen yonent sallallahu alayhi wa sallam ay sa tale dama la bëgg ci jabaram ñoo ne ñu yonent bi dañ lay laaj koo gën a bëgg ci mbindeef yi ñu ne fii ay sa ta ñu ne góor ñi lañ wax mu ne bàyyam mu ne gannaaw mu ne Omar waaye nag loolu yëpp bu tere dafay naxandu buñ séddale seen diggante waaye nag saxaaba yi ñoom bàyyiñ ca maano xam nañu daal jëf ju ay sa sa ay daal te indi sa hadiya daal rey sa xool bu baax lu raw lu xool hadiya ji yëpp di sab keneen lam saara yëpp ku ci am sa hadiya ngay denc rek benn ay sa sa moone ba yonent ne fa ñu indi hadiya yi dara du ko ci néegu lu ñëw rek ay sa sa jël te dañu nag waaye sa neen dara du ñëw saxaagul jabar yonent bi nag daje xaw ndey Faatimata ne ko dañ laa bëgg yéen di sa baay ne ko na ragal yàlla ci doomu Babacar si góor bi maanaam suñu digganteeg moom Fatimata ñëw ne ko sa jabar yama yoon lii lay wax mu ne ko yow du maa la jur mu ne waaw dara warul la lu nga yow li nga bëgg nga bëgg ko rek mu ne wax nga dëgg man li nga bëgg rek laa bëgg daal di jëndee mu ñu xebal nag Zeynabu bintu Jaasin ki nga xam ne dañu bàjjali yonent la Aysa tamit moo daa moo daa tolloole boppam ak man mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax a wax a wax a wax yonent yooyu ko mu wax wax yonent yooyu ko tey jabarama yónni ñu ngi lay lent lu yàlla na nga ragal yàlla ci daal Babacar jii yonent bi tontu ko mu wal ba ci ko xas Aysa ko Aysa ko waxul dara mu dellu ko xas Aysa ko ne may xool yonent rek ba xam bëgg na ma fayam déet naka laa xool yonent rek ba xam ne bëgg na ma fayu may ma daal di fay wax ko loo xam ne dafa daw yonent mu ngi ñëw da nga xam ne daal Babacar sa jëf la de wayin ko fiye mo ngal ngeen ngeen wax takko tan ngeen ragal yàlla ñu la an xala tan mo sama dañ ko faram yaa ji bay ñu la ta jëm rek ngeen yaa ji leen yeen ya tafaraka ndam fa ci ko nañ ci tafé bu fekkee su sant ga yéen naa yéen nag ba sëy ba far ca xam yox ni laa dana doon loo yàlla ku leen képp min sanat muy ci ngeen lam la de boy jabar ji yàlla mën na koo jox keneen ku ko gënal ah jëkkër ji yàlla mën na koo jox keneen de wa kaana laa mosa dañ yàlla waa seen de aji yaa nga ne lam xatti mën de aji xarañ ko lam dogal de walilahi aji nekk la ñaan yàlla maa fi sama waat la mu ci asamaan juróom yaar maa fi ndax mel na ko suñu juróom yaar wala xar wax tay naa walaay dénk nañu yàlla dina ñaan utul kitaaba joo xam ne dañ cee jëfee mu xam ne ci dem dëkk seen way yaa ko moom yéen ñu alquran ani taqoo am na ko mbiram bi taqoo ragal yàlla yàlla de na ngeen ragal yàlla topp ko te bañ ko mooy ndax ngeen mucc ci mbugalam de way takkuroo ndax wedd ngeen yéen ñëpp te inna lillahi naka aji nekk la ñaan yàlla maa fi sama waat la nekk ci asamaan juróom yaar on ko dara nekk ci juróom yaar suñ bind ak ak moom ak ak njaam de seen kéefar mënu ko lor wa kaana laa ma fa gañ yàlla xam ngeen de aji doylu wala suñ bindee am na leen di ko sant de wala laa ñu nekk la ñaar yàlla maa ko sama waat la nekk asamaani juróom yaar maa fi la reer nekk ci suñu juróom yaar rek ci jana laa rek baat boobu baamu na ci ñetti yoon te yàqu dara ci fasaa ak wax ji wala laa maa fi sama waat maa fi darmi foofu lu tax mu wax ko wax na ne bu ñaar yooyu dañ ca teqali ko mu mu jox ku nekk lu gën bu wax ne moom asamaan ak suuf li ci diggante bi nga xam ne mën na loolu digal na leen nana ngeen ko ragal topp ko te bañ koo mooy su fekkee wedd ngeen ko moom ko doylu la wali ci yéen foofu la wax ne moom moom asamaan ak suuf rek jàll doy na wali seen jàll na ko wax nag wali laay ñaan la yàlla maa ko sama waati la nekk asamaan juróom-yaar sama fi la nekk suuf juróom-yaar wa kafa doy na bi laay ci yàlla wax ci leen ci koy jaay li bu jëm ci moom ne foofu moom dafa bëgg nga wax ci ci yàlla te nañ ko wóolu su fekkee day wóolu amuloo yàq nag wóolu yàlla na nga xam ne moom moom asamaan ak suuf rek ñu ci diggante bi de kon kooku sukkandiku ci moom lu doy la rek ñu ne fa ngeen toog na mu ñu mu demee leen ay waa naa fi yéen nit ñi waaye ci seen diggante axar na ci ñeneen de wa kaana laa mos a dañ yàlla xadira ndaaja asan ala faari ko ci loolu de man kaana ku nekk na mu ñu ngi gën a mu namm ku jëfam sawaaba dunya yoo la wax dina xëy na laa ji nekk la fa yàlla sawaaba dunya yoo la wax dina wala axara yàlla axara de képp kuy jëf jëfi topp yàlla na nga ko def ngir yàlla rek bu ko def nag ngir gis tan ak ngir àddina soo ko defee ngir àddina nag comme juum nga de ndax yàlla moom àddina ala axara de kon war ngaa jëf waa ngir ngir yàlla rek wala ngir alaxira de du tax ñu xañ la sa àddina te da nga am alaxira ki nga xam ne moo ëpp de alaxira ki nga xam ne moo gën a baax te moo gën a def wa kaana laa amasa dañ yàlla samiyan di aji dégg seeni wax basiran di aji xam seeni jëf de yaa ayyuhaa allaziina aamanuu yéen ngaa ñu gëm alquran koonu nekk leen xawaamiina di way taxaw bi ko ci maando ci waa daa nit ngeen di way seede dëgg di laay ñeel yàlla wala wala am fusikum yooyu nekk na seede sawar ay bopp seen de bu dee dëgg gi yow la wax sax tudd ko rek neel neel naa dëgg gi man la war de aw ay waali day ni ci yaari wajib de ñu ne sa yaari wajib ñoom la dëgg nga war sax yow seedeel dëgg rek neel dëgg gi sama yaari wajib la war de wala xarab yi naa ci jege ñaale im yekkun dem nekk na kuñ seede ka waxal ko xam ngeen di aji doylu aw faqiran yi muy aji ñàkk xalaatu tab dama ca kanam mooy ci jawaab bi xalaatu tab boobu dem topp ala waa bane xa bakkan su fekkee ko xamal la ak ku ñàkk yëpp yow bul topp sa bane xa bakkan joxal seede ngir yàlla rek wallaahu yàlla awlaa moo gën a xëy nii maa ci ñoom ñaar rek yàlla gën a xëy ci ñoom rek am taat loolu ngeen maanu ci wayin tul woo ndem sopp ngeen seede sa nag aw tuur yi mooy si ngeen dëdd bañ ko joxe way na laa naka yàlla kaan ko suma dañ xabirande aji xam bi maa taamaloon so da ngeen jëf ko rek yaa yohanna si na amano yéen ngaa ngi gëm alquran amino sax leen ci gëm bilaay ci yàlla wa rasuli yi ak ab yonentam wal kitaab yeeg téere rasi baabal na solo wa canalu ko ala rasuli yi yonentam ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy alquran wal kitaab yeeg téere la fi yaa am solo wàcce na mu ko min xam bi seen jëkk mooy téere wàccan ci yonent yi jëkkee de ba mu nekk pour que wet na mu bilaay ci yàlla wa malaayikati yi ak malaakaam wa kutubi yi ak téereem wa rusuli yi ak yonentam wal yawmil bi tan bés laaxira bi daa ji mujj xabal na réer na mu bara nag réer bañ am bilaay sa dëgg de inna la fi naka ñaa amanu dundu suma kafaroo topp ñu weddi da jaamu yëkk woon su ma amoon topp ñu gëm gannaaw ga tuub su ma kafaroo topp ñu weddi Iisaa su ma saadoo topp ñu dalee kufran kéefar ci Muhammad lam yakunillaahu lan yaxfira du baax lawum ñaa leen de yàlla du leen baal mukk wala lu yàgg yoon jubanti mu leen sabilan aw yoon wu jëm ci dëgg de lu ma yoon muy setti see lag mooy daa tariqa jaanama bashiri dëgëral al munaafiqina naafiqe daana lahum naka war na ci ñoom asaaban mbugal alimam raa ji ñetti dëgg àlla si la ñaan ya tax doon gën a ñu jàpp al kaafir na xéefar yi awliya aji ay méngoo mu dellu ñoom ñoo ngi ci jullit ñi ay takko na ndax dañuy sàkko ne dam fa ñoom alal sa teraanga jullit bi wàcc jullit ñi dem di xarit seen xéefar yi ndax teraanga la ci jullit bu fekkee teraanga la ci jullit fay na la xesat naka teraanga billahi ñaan la yàlla jàmm yàlla ñu mboole teraanga lépp ci la xol yàlla la nekk ci àdduna alaxira te moo koy may ku ko neex te du ko may may xaritam rek wa xam ne si la wasaleef na aleykum ci yéen ci kitaabi ci alquran am na ka mbi dan jub yaa xamitum ngeen dégg yéen ayaati la alquran yàlla yëkkaru def weddi jaa ci moom way sasaw te def yëggi jaa ci moom wala taqoro bu doon jëkki maam ànd ak ñoom way weddi ñaar way way yëggi ñu aka yaxoogo dal ba tañu xuusee te adi si di solo xay nii sidul moom de innakum naka yéen isan boobale muslim kenn fen dem ci bakkaat de ina la anaka yàlla jaamoon munafiqi na aji bari la munafiqi ya wal ko kaafiri naa xeefare yi jaanama ci jaanama jameen ñu mboole xeefare naafiq yëpp yàlla dana leen fang yóbbu leen safara de ala si na ñaaya yaka rabba sona danañu mu ngëndiku dukkum ci yéen te in kaan dem nekk lakkum yeleen fatin suuf fatin ak mang fatin mbindan mina laay tukka fa yàlla xaaloo ñu wax ne alam nakk ndax nekk loolu maakum ànd ak yéen jox leen liñ ci mën leen sax ñun jullit ñu ko yéen ñu jox leen way kaana dem nekk nañu kéefare ñu xeefare na fi buñ cëpp xaaloo ñu wax ne alam na saay ndax méngoo moo doon aleykum wala si yéen ndax du alam na saay ndax notanuñu aleykum si yéen ndax du ñu ñoom ñoo leen notal kéefar ya waaw dañu ñoo xeex ak yéen ñoo not ñu ñoo leen notal jullit ñi ci naa fekk liñ naa fekk nekkal ñoom dañoo tax waaw mënu ñoo xeex ak yéen wanam naa tam tam tere leen ñoom ñoo ci way gëm ñi ñun ñoo leen tere de bon ñu jox leen ñu suñu yàlla wala yàlla yàq mu dana mu àtte bàyyi na ko mu diggante ñoom kaama diggante jëm yàlla de mooy ña ko gëm mu yóbbu leen aljanna ña ko weddi mu yóbbu leen safara wala yàlla laaw def ci yàlla ñu kenn rek ñaar way weddi ña sabilan aw yoon alal boobu ne gëm gëm rek yàlla du fàkk nit ku yoonu dëgg waaw boo xam ne xeefare danañ ko mën a jaar ba faagal ak julli bi inal munafiq ina naka naafiq yu xaadi yoon danañu xuru laa yàlla naafiq yàlla lay xuru ba feeñal gëm yàlla ci làmmiñam tàggu ci xolam oo moom xaadi moom aji fay la leen de yàlla yi dana leen fay seen xuru dugge ci xuru jënte ñoom waaye dana leen gàcceel ci àddina dana leen tabal ci mbugalam safara ja àlaxira de way saa xaamoo dem jëm nañu resalaati jëm ci julli xaamoo ñu jóg ko saala mbir ñu jëwee tayal ku saala mbir ñu jëwee diis diis loo naafiq noo koy xamee julleeg ku ko rey la yemale bu ñu jógee jëm ci julli dafay diis ci moom ñuy diis diis lu ñu raawoon danañu gis salal naa fa ñuy ñëw bu ñu julli ñu ña rek tax ñu julli bu leen kenn gisul ñu bàyyi wala surona julli bi ñu laa yàlla ilaa xalilan la rek ngi sal de buñ julli li mooy ngi sal rek yonent ne tilka salaat lu munaafiq na tilka salaat lu munaafiq na tilka salaat lu munaafiq na julli munaafiq yàlla mooy wacc waxtu ba mu wéy ñoom ci baara takkusaan mu bàyyi ba jant bay xonk dëgg sax ñu daal di jël këpp këpp ñoom ci rànk yoo xam ne du ca tudd yàlla du ca sabal te nit ñi sax a tax mu def ko mu taxut noonu bu ko nit ñi xool doon mu bàyyi ñoom ñooy naa fekk de ñu bëb bëb ñu naan mbir mu di way deng deng bay na saali ca diggante googale kéefar ak googale gëm laa ilaha awlaay déet ñi di ñu xaf kan gëm ci yéene kéefar wala ilaha awlaay bu jaaga ñi di ñu xaf kan gëm ci yéene julli de naa fekk loolu du ca fenn ma nga ca kéefar ya ma nga ca naa fekk kenn xamul fu mu fi féete bu ma ni bi aaw ku réeral na ko yàlla falam taj bi fekk ñu lawa ñeen ko sabee nga ma jëm ci njub de yaa yoo def na amoon yéen gaa ñu gamal Qur'an yaa tax soo bu leen jàpp al kaafir mooy wet ñu awliya ñu doy ñu ngi ñu ñu wala julli ak ñu doon ak ngeen nam am tan la ñu def billahi ya yàlla alaykum seen sultan wa alayhi bi ñu gaaji bi ñu munafiqun kana fiqe ci dara ci aji nak lañ ko déere ba la sali bari da ko suñu ñu naari ci safara rek ñu far ñu tax xam ñu gën a bon ya nafiq li tax xam ñu gën a bon yéfar déere ba gën a suufé ci safara kala nafiq yi dëkk dëkk safara rek safara ak ñaa ñëw ca saaru hijri juróom ñaari jéere la jahanama lafa saxeer faqar jahim sama haawiya haawiya bi féete suuf wala naafiq yi dëkk de nga xam ne ñoo gën a ñëpp mbugal walan tajida fekk ci la lawum ñaa leen masira nga ji dimbale de illa la seen dara ñaa taaboo tuub nañu wax ñoo tañ xewenal def seen de wax tax ñoo tañ jafandiku bi laay ci yàlla wa axlasoo tañ xewenal tañ sàllal diinahum diine seen li laay ñaar yàlla ulaayka ñaale gaay maal ñu nii na aji naka la ñu ànd ak way gëm ña de wa sawfa yooti laaw taxal naa jox yàlla almu'miniina way gëm ña ajran ab yool aziman bu dee aji màgg de te mooy aljanna de maa yafalu laahu bi asaabikum bugal ci leen yàlla ñu sakattum ngeen sant ngeen koy leen su ngeen sante koy leen yàlla yàlla bu leen bugal bu këré wa amantum te ngeen gëm wa kaana laahu masaga yàlla saakiran di aji sant seen jëf aliman di aji xam ay mi leen اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وكذا يقول لنا انا بعد خالد انا كتمر بين كتبان كان يعني كما جرى يعني من يحكي به يعني من يحكي به في سجن الصلاه والسلام وشرح لنا كيف تنتهي في المتحول الى كبر سبيل الاسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المختار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولكاشف الغريب لا يحب الله الجهر بسوء من القول خوفا وتواصلا وأكثر لك قبيلين لأن واحد فكت سيدنا أبو بكر كتاب الجنة مصطفى أبو بكر سيدنا أبو بكر نفي مدالو كقص منافي مدالو كقص مفيو yeneen ci jog dem sidina Abubakar topp ko ne ko yow sama sang moo wax na ma lu nekk tontu yi ko nga toog ma tontu rek nga dem mu ne ko bi nga noppee yàlla nga yebal malaaka mu la tontul ndax nga ko tontu rek malaaka ma dëdd iblis ñëw waaw te man du ma soxla moom moo tax ma dem buur ne laa yuhibbu laahu sukkur yàlla laa yuhibbu laahu dara bëggal yàlla aljaara borom ak bidan bu siiwee ci ak ñaaw ñeel xawli ci waa illa man zulima ndara ka tooñ ñox na ko yàlla bëggut kenn koy wax lu bon lu may nag koy wax nga fayu loolu moom sañas na ko rek jëkk ci jëkke daal moo tooñ waaye ci la tooñ nga fayu nag waaw loolu yàlla waaw waxu ca dara de daana de ki nga xam ne moo jëkke mooy mooy ci tooñ de wa kaana laa wasa dañ yàlla samiam de aji dégg la def na wax ko ali man de aji xam la def na jëf ko de waaw suñ tooñ nag bu fayoo amul bakkaat te tabbina ca gan duñ ko teral lu dee koo gane bu la ma dee gan bañ ko wax lu bon te doo ci am bakkaar def gan lu ma ta toppatoo la in tuddoo def feeñal ngeen xayran ni aw yiw aw tuxtoo yi ca ngeen nëbb ko aw taafoo yi ca ngeen jéggale am soo in tuxtooy fa inna laa naka yàlla kaana ma sumoo dañ afuwan di aji jéggale xadiran di aji atande in na def naka ñaaña yakkuroon danañu weddu bi laay ci yàlla wa rusuli yi ak yonentam wa ñun dina tañu namm an yufarriqoo bu ñu fasalaat day na laay diggante yàlla wa rasuli ak yonentam wa yaquluna sañ wax naa ñoo ngeen dinañu dëggal bi baax dañ ci lenn ci yonente yi wa nasru tanu yeddi bi baax dañ ci ñenn ci ñoom wa ñu dina tañu namm an yattaxidu bu ñu jàppat day na zalika diggante googale kéefar ak googale gëm sabbi lan yoon ñu dem jëm ci moom ulaayika ñooy la gaay humu ñoom al kaafiruna ñoo wari way weddi de xaqan dana ma dëggal ak dëggal wa atat naa taqadu nanu lil kaafirina ñeel way weddi ñaa asaaral mbugal mu mu di borom ak gaa dal leen de moom mbugal mooy safaan wala dina ñooñu amanoo gëm nañu bilaahi ji yàlla wa rusuli ak yonentam yëpp wala mu farriqoo dafa fale huñu bayna ahadin diggante kenn minum ci ñoom ulaayika ñu ne la gaay dafa nuutihim xam na noo jox leen ujooram ñu leen jox seen wa kaana laahu masada yàlla xaforam di aji bayi ñaali xajam rahiman di aji yaram leen yasaluka dana laaj la al kitaabi ñooñu téere antu nasira bu nga wàccaat aleen ci ñoom kitaaban téere ñu nasama ebi ci ko jaasamaan de ñu ne yonente yàlla muhammad dañ bëgg ngay du ñu alquran mooy kaay bi wàccandoon ñu rek waaw bàyyi ko ci asamaan ci bëmbëstan naka nga xam ne noonu la tawreet wàcce woon de waaye alxuraan bi di wàcc lëf gannaaw lëf waaw loolu ci buuf ne waaw wala ba nga xam ne dañoo laaj yonent ne ko nañu yàlla bind leetar waaw ne tukkee na ci man yàlla jëm ci abi jaari Isa moo man maa ko yónni jëm tukkee na ci man yàlla jëm ci saybata jëm ci ot ba te ñun kilifa yëpp nañu yàlla bind leetar waaw wax ñu ne moo la yónni gannaaw ba nag ñu ñëwoon boppam ak malaaka yëpp waaw ñu ñëw ne moo la yónni Abubakar lu mu yónnee di dem faqat saara waa laajoon nañ Moussa Moussa ak baraan jëm jëm màgg nañ saali ci lene liñ la mën a laaj rek laajoon nañ Moussa lu ko gën a màgg rek fa qaalo waxoon nañ ne arina wallu laala jaaratan ci janoore loolu la yowoon laajoon bani Israila waa bani Israila noonu lañ laajoon yonent yàlla Moussa seen yonent ba rek ne ko wan yàlla waa jaaran su ko deful rek duñ la gëm de faaxa sa bim sa jàppaleen faaxa katu xaa ci jibril de jibril xaa ci leen ñoom ñëpp ñu dee gisul ñu ci saw si toñseen ndax laaj ñu woon ngir sawku dañoo laajoon ngir dëng waaw dëng yonent ba rek lañ jubloon ci laaj rek ne suñ laajoon ngir sawku xalkaare bi leen ca fekk ne seen yonent sax wax na ne arini am bi ilayka waaye moom sawkoo tax mu wax ko su ma taxasoo kapp ñu jàpp alee ji dañu too muy yàlla min baadi maa jaadum gannaaw bu dikkalee dañu naa tuur ñoom kawtee ñu tekkale ñu tak yàlla gannaaw ga ñu dem di jaamu aw yëkk yëkk waleen samri te gënoon naka la dagan nga saaru baqara fa faw naa tan jéggal xam saalika ci loolu lépp te faagaagalul leen wa aateenaa tan jox Muusa Muusa sultaanan lay mu génn wu di aji jub yàlla jox yonent yàlla Muusa lay ci waa xam ne mooy mooy seen ab tuub mooy ngeen rey waa ngeen rey seen bopp rek ba ngeen ko toppee rek yàlla waaw baax leen war a faanaa tan yëkkati foo kawum ca kaw seen suura dajwa ñu ni sax yi ci saw ci kolëre seen bañ leen joxee tawreet ñu lànk ne duñ ko nangu yàlla fa buddi téwër kii ma di leen ko ne nangu leen tawreet wala ma daane bañ seen kaw rek waaw loolu itam waaw ñu fa ko nangu waxul naa ta waxoon leen ndaw ñu ne leen utkuloo xaram leen albaaba buntab arihan su jodoon mbir mu ngeen di way su jóot bañ dañ leen ne woon dugg leen sa buntu ba ngeen su jóot ñoo yéen ngeen lànk waaw dugg di dar doo seen dugg waaw waxul naa ta wax la ñu ne leen laa taa doo bu leen napp fi tapp ci aset ja aayoo na ngeen napp jën aset ngeen napp te sa yooyu daa wax ne ca baqara moo tax mu di ko dagg rek ñu ci tuddee baar rek nga xam xisa ba waaw ndax daa yoon na mooy li xibaab waa xam naa san jàpp ñoom ci ñoom mi saqan kelere ali san jëre aji dëgër de ñu siréeti ko ko bi maanaam biim ci sabab ci siri seen yéen mi saqawum kelere seen ba nga xam ne yéen siri nañ seen kelere ci doxal seen diggante ak yàlla wa kufrihim ak weddi seen bi ayatil ay ca tawreet ba buur ba ñu weddi itam tawreet wa qatlihim ak ak rey seen lam bi a yonent ya bi xayri xaqin ci tooñ ñu ay yonent ya waaw ci kaw tooñ wa qawlihim ak wax seen ñeel yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam qulubuna ay xol sunu xul sunu yooyu muur nañu muur ne bal bayit sabaa laa liñ kañ yàlla xale ca xole di kufri ci saw ci kéefar seen wala yooyu ñu gëm ci la xale ndara ji ñoo ci ñoom tamay abdullahi ibn salaam di saabaan wa bi kufri ma ak ci yàlla di seen yoonu ñaara ay la fiesa loolu ndëngte yëpp ci jamono Muusa lañ ko defoon ak gannaaw Muusa jëkk ñoo Iisa Iisa ñëwati moom ñu weddi ko te yonental yàlla la wa qawlihim ak wax seen ala Mariama waral Mariam buhtaananu nar asiun wi de aji mag de ñu wax nar wu mag wi nga xam ne ne moom lañ jëmale ci Mariama ki nga xam ne wali si jiqatu la ñu ne dafa njaaloo Iisa doon njaaloo la wa qawlihim ak wax seen mbir mi ñëwee fukkare inna naka nu qatalna rey nanu almasiha masiha Iisa Iisa ibnu Mariama mooy doomu Mariama rasulillah rasulillah imantal yàlla ba ñu dellu waxat ne rey nañ Iisa buur wax ne ngir seen looleen wa maa xataloo rey ñu ko wa maa salaboo salabuñ ko walakin daf nekk ci deelantal def na doon ñee leen suñu salab kaa kuñ rey te ñu defe ne Iisa te kooka seen àndaale mooy tata yaa annoncé waaw ci sa Iisa ngoog waaw ñoom waaw ne nañ rey nañ Iisa ndax dañ dajewoon ci seen buur ba ne ko Iisa a ngi yàq suuf si rek ne ko rey mu ne du ma rey kenn ku defut bakkaar ñu ne ko bakkaar na mu ne lu mu def ñu ne ko yàq dafa yàq suuf si ñu xoo Iisa ba ñu xooyee Iisa Iisa ne mu waxul lu may nañ jaamu yàlla waaw te wéetal ko waaw te topp yàlla rek waaw xoo leen jëm ci yàlla rek loolu mooy bakkaatam ñu ne rek ñu ne buur bi rek rey ko mu ne mu ma rey ku defut bakkaar ñu ne ko rey ko ñun yow ñoo ko gàddu ak suñu sa gëppee njël yàlla buur ba yóbbu Iisa tëj ko ca kaso ba ñu muur rek ne nañ rey Iisa danoot buur ba ci ne nañ rey Iisa buur ba yóbbu bu mel ni mooy Iisa ñu jàpp ko indi ñu daal di ko salab takk ko ci bant xaj ko diggante ko ak suuf waaw gannaaw ga ñu rey ko xanaa rey nañ Iisa Iisa lañ bëggoon a rey yàlla moo yëkkati Iisa aw ñi nga ñëw rek waaw daal di fab Iisa jamal moom asamaan de mu tàggu yaayam yaayam ne ko kañ laa lay gisati mu ne ko pencal yàlla rek ñu ca la ñu gisati yàlla daal di dindi ci moom bane xam lekk ak naan ak sëy waaw sa xalal koy mbagg ne kamalaaka yi naaw ak moom mu dem asamaan de waaw seen na nga yeneen ñu képp ko meraw Iisa ñu rey ko waaw loolu mooy rey gi ñu rey Iisa de waaw booba ba tey te yahut ñoo santaane woon ne nañ ko rey ñoo wax ne it gàddu nañ damam ñoom ak seeni sët ba pencal yàlla ndax nañ paa bu biyaa bi rek bëréeral ko waaw mu ne dañal na seen baar ci dami Iisa dëgg-dëgg jur ñi ñoom li nga xam ne moom lañ jàpp duñ ci dellu gannaaw mooy Iisa kenn wayu ko yàlla yëkkati na ko yóbbu asamaan waaye nag su fekkee ni ñoom santaane nañu rey nañ rey Iisa ba dogu ci rey Iisa bañ jëli Iisa ba ko rey yàlla jël meloom képp ko keneen ñu rey kooka defe ne mooy Iisa xam nga ban melo ñu rey nañ Iisa waaw Pape Diouf ñu rek war doon nangu nangu rek way na la seen ak ñooña ustalafoo xuute nañu ci ci diggam Iisa la fi sakki naa ji nekk la ci sikk ñu ne ci ak rayam de waaye ñoom sax ñoo gë gëkk a sikk ndax gannaaw ga nañ ñu ndey ci ñu rey su fekkee ni Iisa la tata yaanoo si gisatuñ ko su fekkee ni mooy tata yaanoo si waaw Iisa gisatuñ ko rek te rek maa leen di ñee leen di ci rayam ñu leen xam-xam lépp ba fan yi ndara topp njort rek defe nañ ne rey nañu Iisa daal wa maa xataloo rey ñu ko nag yaqinan ci lu wóor waaye lu wóor mooy rey ñu Iisa de yàlla bal bay rafa wala yëkkati na ko yàlla ilay jëm ca barab nga demoon mooy asamaan wa kaana laahu masada yàlla xasi san di aji mat ci buuram ak ci man di aji xelañ ci jëfam de waaye mu ne ahli kitaab yi aji nekk la ci lenn ñoo yëpp téere waaye mu ne ahli waaye mu ne ahli kitaab yi déet kenn ci ñoo yëpp téere illaa la yow ñu nan na ndara bu gën a mut gën di ci xeesa xam la moo fi li jëkk dee rek téere ga amul na dan yahood wala nasaraan boo xam ne dana dee lu mooy dee xarxarle yàlla dana ko am mbi dam xeesa bam gëm ko balaa dee de waaye ci waxtu woo xam ne gëm du jëriñ wala illaa la yow ñu nan na ndara bu gën a mut gën di ci xeesa xam la moo fi li jëkk dee ak xeesa mboolem ahlu kitaab ñett ñuy jaamu xeesa di wax ne yàlla laag doomu yàlla laag ñuy wax leneen ñett yàlla dana wàcce xaar Isa ci mu jóge àddina ba ñoom ñëpp ñu gëm ko xam ne yonent bi yàlla la bu yàlla tànn rek wa yawmal qiyaamati ak ca pencal yàlla yakun dana mu nekk seytan di aji seede alayhi ci ñoom pencal yàlla itam mooy seede waral leen la mboolem luñ defoon de waaw yonent na ne waaw jage na bu wàcce ci yéen Isa ibnu Maryama di aji xatte joo xam ne bi maanu lay doon mooy dindi galag bi nekk ci àddina kenn dootu fay galag mooy rey mbaam tëram mooy rey dajaal mooy damm kurwaa yi ñuy def ak istati yi waaw di ko jaamu di yàlla yooyu yëpp isa koy dindi waaw taxawal sax yonatu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag maandu ba nga xam ne war sa gën a dëgg ci àddina ba kenn dootu kenn dootu ko nangu dana génne nit dana génne muusam di yërëm moom su ba mu fan jot bëgg ko saraxee du gis kenn kum sarax kum ñëwal rek nga ne ko ah boo ñëwoon démb de amoon naa soxla waaye tey aw ma tey soxla moom waaye amul kaama di ca pencam yàlla yàkkoon gën a mu nekk say dande aji sara leen ci ñoom fa bi sun min ci sabab ci tooñ ñu ne rek si nëpp ci ñooñu xaadoo yowat nañu waxa xaram naa la doon xaramale aleen ci ñoom say baatin way tey way dagale dagale fan dagale fan na ko doon ñee leen rek ñoom ahlul kitaab nag waaw yowat seen ak tooñ tax nañu xaraama ci ñoom loo xam ne daganoon na rek mooy ku na fi duurin waaw la xala ñoo gasaaral am ne wa bi sabiin ak ci sag seen nit ña an sabilillah wa si yàlla ak sag kasiran bu dee aji bëri waa ak biim ak jàpp seen riba riba wa xam ne woo ta teres na rek na ci riba ca tawret waa ak lim ak lekk seen am wala naa fi jidi nit ña bil baati li ji ngar waa dañ daa ngeru jiyaate waa ta naa xaru na ñu kafir na ñeen way weddi ñu ñu ci ma saban dugal alim mu dee aji ñetti leen laakin mu ci nekk raasu xoon way sax ñoo fi dal li ci xam-xam yim ci ñoom ña nga xam nag ne xam nañu xam-xam bu wóor bu sax naka Abdoulaye ibn Salaam wal mu'minuuna way gëm ña muhaajiruuna wal ansaar ñoom ñoom ñu nañu gëm ima am sila ci la wasale ilayka jëm ci yow Muhammad wa ma am sila la wasale min qablika jëm njëkk sa de wal muqiimiina taggal way taxawal ña salaatu julli juróom wal muutuuna way jox ña sakata asaka wal mu'minuuna way gëm ña bilaay ci yàlla wala yow di tegas laa xari baraji mujj ulaa'ika ñooy la gaay sanuutihim xam ne moo jox leen ajran loola xasiman biraji màgg te mooy aljanna de inna naka nun yàlla aw xay na wayu noonu ilayka jëm ci yow kama aw xay na naka nu wayoon ilaa ne woon jëm ci yonent yàlla ñooñu de yàlla moo wàcce ak yonent ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naka mu yónnee woon yonent yàlla ñooñu de dina yonent yàlla yi wa nabiyyin ak yonent yi min baadi ci gannaawam wa aw xay na waaw ñooñu ñëpp yàlla mi leen yónni moom moo yónni Muhammad de wa Yaqooba ak Yaqooba doomu Isaaxa wala sbaate doomu Yaqooba yi dañoo Israël wa Isa ak Isa wa Ayoba ak Ayoba wa Yunus ak Yunus wa Haruna ak Haruna wa Suleymaan ak Suleymaan wa ate naa jox na baayam Daawuda Daawuda saboran sabor téere sabor téere buñ bind wa rusulan yónni nañ ay yonent qad qasasnaahum ñooñ solo nañ leen alayka ci yow min qabli sa njëkk yàlla yónni na ay yonent yoo xam ne nettali woon na la seen xabaar bu njëkk rek wa rusulan ay yonent lam naqsusum solowuñ leen alayka ci yow de ay yonent yoo xam ne waaw yàlla solowul la seen seen njubbe yàlla yónni na yonent yu bari sirikat bi ne solo nañ ne yàlla yónni na juróom ñetti junne ñeenti junne ci bani israël ñeenti junne ci mboolem ñi mu ne sëriñ bi ko wax ca saaro kaafiri dañ na ci moom ndax wax ji dafa yónut moo tax ne waaw sirikat bi borom jalaal askan ko mag bi nga xam ne moo ko jëkk a wax de waaw ca saaro kaafiri li wét mooy wax jooju lu daa di la solo nañ ne yonent yi nga xam ne yàlla yónni na leen alfaka xadim lañ téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeenti junne am na ñu ne ñaar téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeenti junne genn wàll gi ci bani israil genn wàll gi ci mbooleem nit ñi ñoom ñooy li ma lambiyaa ak mursal yi nag rusulu yi nag ñett téeméer lañ ak fukk ak ñett limam ñooñ badar ak limam ñooñ kaanuuta ñett téeméer ak fukk ak ñett ñooy rusulu yi loolu la yàlla yónni ci ay yonent wa kallama laa waxe na yàlla Muusa Muusa ci rugur waasitatu ak lii man ak waxe yonent yàlla Muusaa nag moom la yàlla jage jagle yàlla wax na moom